ni ni ni ni moy man day ou alors ça veut dire que man kat sénégalais légui léegi tekkeetuñu dara. Mm-hmm. parce que tay jii nit ku melni président de la république moo Ousmane Sonko nénañu ci histoire du Sénégal musuñu am un premier ministre boo xam dañ ko fal mëna du dem def déclaration politique trouver tous les stratagèmes possibles et imaginables mom ak son président de la république pour se dérober euh, bañ a que euh, député yi nek ci assemblée nationale. dafa ruslu léegi problème moom mooy léegi qu'est-ce qu'on va faire mm-hmm. yéen Sénégalais da ngeen nar a wooteel ñii ñii ak li ñu def fii yëpp mm. joxal leen majorité ak scandale yi fi am ak scandale yi fi am ONAS taxawee na le ASER taxawee na le Ousmane Sonko taxaw ne moom règlement intérieur mooy problème moom kaw Cheikh Oumar Diagne Ousmane Sonko moo taxaw ci ci ci assemblée na ci ci ci ci ci leetaram biir primature mu ne man mm-hmm. juróom-ñetti fukki fan après quatre-vingt-dix jours de délai 5 novembre lañ euh, euh, euh, euh, comment dire 5 avril lañ ko fal lañ ko lañ ko nommé Ousmane Sonko régné moom ak Bassirou Diomaye 80 jours bi m'a laissé fukki fan ci délai en général délai de coutume bi fi 90 jours yi muy doog bind lettre ne leen dama bëgg ngeen faire ma règlement intérieur am na ñoo xam il est de bonne foi man gëw mu Ousmane Sonko est de bonne foi dama gëm ni Ousmane Sonko n'a jamais voulu se mettre en face justement de ces députés là à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. ñu ne baax assemblée nationale defar këyit bi indi ko. Mm-hmm. jox leen ko ñu promulguer ko président de la république assemblée nationale ñoo choisir la date du 11 ci Gatel. Mm-hmm. président de la république def lii mu def nii barki démb ci guddi waaw léegi élection tey bu amee kan moo xalaat la majorité l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'on va faire les sénégalais est-ce que léegi nii wala wala lan ngeen bëgg góor gi euh, euh, Babacar Mbaye Gaaw wax bu am solo sànq ci Hitler Hitler est arrivé au pouvoir mhm. par voie d'élection élection Hitler a gagné les élections en Allemagne noonu la ñëwee ci nguur gi mhm. waaye gis ngeen nu mu évolué ba fi muy toll sama xel amoon na daxawoon tout. dal tuuti mhm. sama xel daloon na tuuti ci Bassirou Diomaye Faye à un moment donné donc damay garder yenn saa toutes réserves mm-hmm. mais je me rends compte qu'aujourd'hui mm-hmm. que nit ñi c'est hyper dangereux mm-hmm. rappelez juste aux Sénégalais que nous ñoo doon wax bi ñu Macky ci nguur gi dans l'opposition élection législative am dañu taxaw ne il faut jamais jamais donner à l'exécutif une majorité à l'Assemblée nationale il faut toujours équilibrer les choses Sénégalais au jour d'aujourd'hui l'heure bi et je pense que ni vous devriez tout faire pour que ñii nga xam ne dañu def lu leen neex ànd ak effronté boo xam ne mhm. ànd ak espèce su reewande boo xam ne ci mhm. ci réew mi boo gisee man maa ngi dégg mertal muy wax démb man man man man man dama doon stagiaire ba nag man dama ne dama ne dama ne waaw dama ne dama ne mii euh, mais mais xam nga ah, euh, ah, c'est c'est ces gens là je crois que ni réew mi ay bu fekkee nag ñun ci la ñu bokk mhm. euh, nañ ko wax il faut qu'on aille à l'Assemblée nationale je lui dis je lui dis il faut pas rester comme ça euh, laisser les gens faire une équipe di je lui dis ñu def le peuple ah, a besoin de nous. on peut pas laisser comme ça. on peut pas on peut pas. mais ah, ah, ces gens là moi de voir ces gens là à l'Assemblée nationale. le grand c'est un technocrate mais il faut que vous veniez à l'Assemblée nationale parce que vous avez dit. la cohabitation. est un moyen d'amélioration

mais essaye au ah, moins essaye d'avancer un peu essaye tu peux pas tout le temps di xool oh, li nga def li nga leen ci parce que da nga sentiroon ben injustice ces gens là ils t'ont déçus. tu attends encore qui une Sow qui defaat qui te déçoit encore y en a ko defal sa bopp mais au moins ça nga am nga am kaddu ci pendant vingt ans trente ans yaa ngi dem journaliste yaa ngi wax say xalaat machin mais kan moo la faale kan moo le faale mais nous tu continues ces gens là ils sont là juste qu'est-ce qu'ils ont fait mais man honnêtement très honnêtement man Ousmane Sonko Hmm. man Ousmane Sonko man li ma def ci réew mi defu ko Ousmane Sonko lan def ci réew mi Ousmane Sonko dafa jàng école ñu fay ko ñu fay ko ay école état bi toppatoo ko dugal ko fa béréb bi ko dugal ñu jël seen avantage ba ba fi ñu toll ni hmm. créé seen syndicat ba fa ba toll ni ñu mujjee fi lan la ñu defal réew mi fo lan la ñu fay qu'est-ce que mos nañu fay ay nit on a des une entreprise on paye des gens Oui, Qu'est-ce qu'on doit faire On fuit, on assume, on continue à assumer, on tient le coup, on s'organise, on réfléchit ensemble, on essaie de trouver des solutions. On fait comment

nga tok di xalaat wax Alioune Sow la wala déet jëlal sa téléphone musuma wax sama aduna wu dara te defuma ko xanaa maa ngi ñëw xaw a yéex a ñëw waaye les gens ne disent pas la vérité ici mm. ce pays est infesté de menteurs et d'hypocrites mm. il faut que ñu wax dëgg gars yi il faut ñu taxaw une autre manière de xex xex ci dëgg

mënuma taxaw di ko waxaat Sénégalais yi di di leen indil ay prétexte yoo xam ne ñëpp xam ne Baba euh, Adama Fall mi koy wax léegi ñëpp xam ne ni du dëgg parce que nit ñi dofuñu